Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono More e vi sto parlando da Giurbel. Yarem, la mia città natale come sempre. Saluto a tutta la comunità senegalese che vive in Italia, ma faccio anche un applauso a tutti i follower che si stanno seguendo su YouTube e Facebook. Oggi ragazzi vi terremo aggiornati di una bella notizia per quanto riguarda il decreto sostegno perché alla fine possiamo dire che è arrivato la svolta. Allora, fino ad ora tutti i lavoratori stagionali che avevano diritto per il bonus 2400 euro, che fino ad ora cioè, stanno aspettando il link per fare la domanda. Alla fine è arrivato quel link. Quindi oggi, diciamo verso le 18, orario Italia l'IMS ha pubblicato il link per tutti i richiedenti che hanno diritto per il buon sostegno 2400 euro. Avete capito che tutti e aventi i diritti sono stati pagati già dall'8 marzo. Ora tocca a tutti i richiedenti che hanno tutti i requisiti ma che devono fare una domanda. Quelli che non hanno mai fatto la domanda quelli che ora hanno tutti i requisiti e devono fare la domanda e quelli di prima che avevano fatto la domanda ma erano visti tutti i domande respinti. Quindi tutte quelle persone oggi hanno l'opportunità sul sito IMS di presentare una nuova domanda per avere il bonus 2400 euro del decreto sostegno. Quindi l'IMS ha pubblicato il link, è disponibile sul portale IMS e tutti i richiedenti che hanno tutti i requisiti possono già da domani, anche oggi, fare la domanda e scade pure anche fino al 31 di maggio 2021. Parleremo anche di alcuni provvedimenti sempre in merito al prossimo decreto sostegno bis e per finire parleremo anche della novità che c'è tra il bonus 2400 euro e il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza, ma anche, ci sono anche dei cambiamenti per quanto riguarda la NASPI 2021. Oggi quindi cercheremo a capire con voi tutti quei novità insieme. Salam alaikum yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax man la seen mbokk taalibe Mortala Sarr depuis Diourbel maa leen di sant bu baax baax di nuyu fépp fu waay mën a nekk ci Italie ak li wër donc euh, comme niñ leen ko doon waxee à chaque fois rek ñu am ay nouveauté yu bees yo xamante bi japp nañ ni donc euh, la communauté sénégalaise bi dund Italie euh, que ça soit muy kat bi que ça soit muy kat bi que ça soit ki nga xamante bi donc jamono ji dafa nekk désoccupado alors dinañ si mëna jarñu ba xam seen position donc ak naka lañuy taxawé donc xam ngeen ne décreto sostegno passé nañ ko donc voté woon nañ ko ba commencé ko woon a fay ba sax gouvernement bi mu ngi ci ci fan yi di ñëw donc taxawal euh, beneen deuxième décret bu ñuy wooye il décreto aprile wala il décreto sostegno bis alors xam ngeen ne décreto aprile biñ ko bi mu jàllee rek décreto sostegno bi mu jàllee rek ci le 23 mars bi passé euh, ñi amoon droit yépp ci paiement automatique te jotoon ristori yi yu mujj yi alors ñoo ñëpp ñi ngi commencé woon doon leen ko fay qui li commencé le 8 avril donc bala 15 donc jamono ji ñuy wax ak yéen képp koo xamante bi rek paiement automatique boobu jotoo alors xamal na yow da nga wara une dem nga présenter benen demande bu baisse parce que ñàkkut nga nek saisonnier bo xamanteni bi alors entre 2019 ba 2021 bi ñu nek ba 2020 alors am nga fi 30 giornate di lavoro come stagionale, donc versé nga fi contributi sa contrat stagionale la te donc jamono ji amoo nas bi et que aussi le 23 mars bi décret bi di daanu fekku la nga nekk ci nas bi wala nga am contrat bu ubbeeku donc jamono ji yow bu fekkee stagionale nga wala nga nekk incaricate alle vendite porta porta wala nga am contratto intermittente wala nga nekk autonomie privi di partita IVA wala nga nekk donc lavoratore del del turismo a tempo determinato wala nga nekk lavoratore dello spettacolo wala nga nekk donc lavoratore o collaboratori sportivi wala aussi nga nekk stagionale del turismo e dei stabilimenti termali wala stagionale del, del settore diverso del turismo e dei stabilimenti termali donc mën nga gaaw nga dem présenter demande euh, bonus 2400 euros pourquoi parce que demande boobu boo ko présenter automatiquement rek yow alors décreto sostegno bi di ñëwaat ci wéru avril bi nga xamné dina fayat bonus stagionale pour yenen ñaari wér alors yow automatiquement dang koy am motax tax jamono ji képp ko xamanteni bi gissone ne paiement automatique yoy bok nga ci soit nga gëjoon am ci lejje kura italia ñaar 600 euro, ak 1000 euro bi nga xamanteni bi bii ñu ko entre juillet ak août tam am ño xamanteni bi sax donc ci ci digënté période bobu lañ leen ko fayon alors catégorie gogu yépp dañuy ñëw présenter benen demande bu bees bu féké ñoo ngi maintenir requisite yi ba tay te bëgg jot ci bonus 2400 euros bi parce que bonus bobu dina la permettre bo défé demande bi ñu accepté la rek alors décret april bi di ñëw nga xamné day prolonger wat saisonniers yi donc fayat leen fayat partita IVA yi pour yeneen ñaari wër donc fayat yeneen ñaari wër pour rédito di émergence bi donc yow automatiquement rek da nga ci bokk moo tax képp koo xamante ni daal depuis le 8 bala le 15 gisoo sa paiement mu ñëw automatique alors xamal ne da gaawal nga présenter demande de ce fait nga mën a bokkaat ci décreto sostegno bis bii ñëw euh, am ko automatique ginnaaw bi nga xamante ni bi réquisites yi ñu wax yépp yow matal nga ko soit doon nga ko jël amoon nga ñaari 600 euros ak 1000 bi wala aussi donc amoon nga benn 600 euros te wala nga dugaloon demande ñu rejeté la wala mosoo présenter demande te bokk ci catégorie stationnale yooyu ñu lim alors gawal nga ñëw présenter demande de ce fait euh, do am benn jafé jafé pour cesse ñu bis bu ñëwé rek yow dang koy am donc euh, automatiquement donc ni leen ko waxé IMS tay vers 18h publier na link bi nga xamante bi donc mi ngi ko tuddee bonus stagionale Covid decreto sostegno 2021 donc kon link bobu légui c'est disponible ci site IMS bi ginaaw bi nga xamante bi depuis le 23 mars Euh, catégorie gu bëri ci liggéeykat yooyu ñoo ngi ki doon xaar alors demande yooyu démarré na ba ku dem ci site IMSS bi alors mën nga boo amee euh, tuuti réquisites yi mën nga ko defal sa bopp wala nga dem ci patronato yi wala soo ñu contacter alors boo amee réquisites yépp te réquisites yi nag buñ koy wax mooy nga nekk stagionale bu am tous les réquisites yi bëgg a présenter demande bi ak tamit nga am sa codice PIN IMSS wala nga am sa codice SPID alors ak sa IBAN boo xam ne yow yaa ko intestaré donc dinañ la mën a defal demande bi foo nekk envoyé la sa recevute donc loolu laa bëggoon a xamal mbokku taalibe yi li ñëpp doon xaar muy catégorie gu bees stagionale war a dugal ci bonus 2400 euros bi te amuñu ko woon automatique donc link boobu disponible na ci site IMSS bi fii ba le 31 mai alors képp ko am droit mën nga dugal ci loolu donc dinañ la ko fay de ce fait restore yi bis bi bu ñëwee donc yow Euh, automatiquement nga koy amaat mais dutu fa nekkaat di présenter demande donc ñu xam le ne demande yooyu jëm ci bonus saisonnier boobu noonu moo ngi commencé woon depuis le premier avril waroon a jeex le 30 mais mais ci biir circulaire bi donc dañu changé date bi déplacé ko léegi waratu a jeex le trente avril mais dina dem ba le 31 mais comme ni ni mu ñëwee ci circulaire bi alors beneen novita bu bees bu ñëw ci circulaire bi te im si leeral ko mooy diggante li ñuy wooyee donc compatibilité ak incompatibilité maanaam li nga xamante ne bi mën nga koo boolee ak bonus bi ak li nga xamante ne bi mënoo koo boole ak bonise bi donc ci biir circulaire IMSI bi génn bërki démb lim xamle ne mooy bonus saisonnier 2400 euros bi képp ku am droit yi rek jamono ji tey jël reddito di sax mën nga ko cumuler donc bu boobaa dañuy procédé ak li ñuy wooye donc intégration ne maanaam bu fekkee man damay jël 500 euros mbaa may jël 600 euros mbaa may jël 400 euros lu ma mën di jël nu mu toll rek alors chiffre boobu dañ koy yokk di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba ba ba li ko manqué 2400 euros ñu mottali ko ko supposons su ma doon jël 400 euros te am droit ci bonus stagionale war a xeetu liggéeykat gu ma mën di doon rek alors man dinaa amaat yeneen 2000 euros muy 2400 euros. su ma doon am 600 euros alors dinañ ma tegal 1800 euros muy 2400 euros ba keroog may matal chiffre boobu donc kon euh, décréto sostegno ci weeru avril bi nangu na nit ki jël reddito di cittadinanza ba pare am droit ci bonus stagionale 2400 euros yi boole ñaar yooyu yëpp donc mën nga koo cumuler ci lu amul benn problème donc li ñu mënta cumuler mooy te leeral nañ ko ci biir circulaire bi mooy euh, REM ak bonus stagionale mënuñu ànd donc euh, mënuñ ñaari mesure la yoo xamante ni bi mënuñu ko cumuler ci biir circulaire bi foofu mi ngi xam ne ne bépp nucléo familiare boo xamante ni bi maanaam da doon jël rem te ci biir nucléo familiare boobu am koo xamante ni bi moom am na droit yépp pour dugal bonus saisonnier 2400 euros bu dugalee bonus saisonnier boobu noonu dañ ko koy rejetel parce que nucléo familiare bi mu bokk moo ngi jël rem pareil tamit ci koo xamante ni bi alors saisonnier nga bokk ci nucléo familiare boo xamante ni bii am na ko ca war a dugal rem fekk yow nga am droit exceptionnel donc mënu leen a ñaari mesure yooyu benn mesure rek moo mën a am te benn lañ mën a dugal loolu liñ ciy jàngate mooy rem ak bonus exceptionnel mënuñu ànd mais mën na ànd ak reddito di sa mën na ànd aussi ak NASPI ci kaw ki nga xamante ni bii day def bonus 2400 euros bi contrat bi mu amoon nekk contrat intermittente te moment bi muy def demande bi naspe NASPEM nekk en mu dugal ko bu boobaa du am benn problème bu fekkee ki dugal demande bi contrat am intermittente la maanaam accamaata donc bu fekkoon dafa dugal nas bi ñu koy fay mën na ko cumuler ak bonus cent euros bi lu mu ko du yàqal dara alors ci cadre nas bi ba tey foofu la ñuy tënkee mooy ci biir circulaire bi IMS aussi leeral na lu am solo euh, circulaire bi génn bërki démb alors leeral yooyu dafay am solo ñu egg ko mbokk taalibe yi amaana am na ñoo xamante ne bii loolu moo bloqué seen nas bi te xamuñu ko xam ngeen ne décréto sostegno bu njëkk bi dafa indi woon mesure boo xamante ne bii daf ne donc day cancellare 30 jours effectifs yi nga xamante ni bii képp koo xamante ni bii sa contrat dafa jeex ba nga war a dugal nas bi loi bi dafa lay exiger ci 4 dernier années yi nga liggéey ci tredici settimane mooy droit bi te at at bu mujj bi nga xamante ne bii yaa ngi dugal disoccupato alors il faut nga am 30 jours de labeur effectif manam fanweeri fan yo xamante bi mam da nga koo mu mat seuk ci at bi lolou boko amé rek di nga mëna a nas bi mais mo mës nek donc euh, euh, euh, critère yi ak règle yi alors décreto ñoo xam ngeen né la signora non si Catalfo donc defoon na ben amendamento di xamle ne bëgg na ci décreto sostegno ñu cancellare 30 jours yi nga xamante bi moy les 30 jours effectifs dañ ko doon laaj képp kuy dugal Desoccupateurs ci at mu mujj mi alors ñu cancellare ko pour tutto l'anno 2021 loolu effectivement mesure bu ñëw la ci décreto sostegno bañ appliqué ko ba léegi li commencé 1er janvier 2021 ba le 31 janvier 2021 duutuñu laaj kenn 30 jours yooyu noonu pour képp ku jeexal sa contrat wala dugal nas bi yow assurer rek trait di si yi nga xamante ne bi am nga ko ci quatre années yi mujj yi de ce fait trente jours effectifs yi ci at bi mujj bi ngay dugal désoccupation kenn duutu la ko laaj loolu tamit taxoon na depuis janvier ba tey ay nit dugaloon nañ fi nas bi IMS rejeté leen wala leetre bi ñu bindal leen ci ne alors NASPI bi rejeté nañ ko désoccupation bi rejeté nañ ko parce que trente jours effectifs yi mataloo ko donc képp koo xamante ni bi donc IMS moo xam ne loolu ci circulaire bi dañoo rejeté woon sa nas bi parce que motif bi moy mataloo 30 jours effectif mais amone nga 14 ci ci 4 années yu mujj alors ils nee na demande yooyu de dinañ lañ examiner wat fayat sen borom pourquoi parce que requisite yi nga xamanteni bi donc dañ ko ci tegoon ba tax ñu écarter sa demande lolu décreto sostegno bi da ko abrogé donc ñu kenn ngay duggal nas bi fi ba le 31 décembre 2021 30 jours yu mujj ci at bu mujj bi koy euh, critère bi rek moy Euh, sa contrat na nekk discol contrat collaboration ne wala donc nga nekk lavoro subordinato opéra yi wala leneen lu mu mën di doon sa contrat jeex nga dem dugal disoccupato alors liñ lay laaj mooy di 13 ne negli ultimi 4 anni donc laajatul la 30 jours yi ku defoon disoccupato bi nag INPS rejeté sa demande parce que mataloo 30 jour yooyu demande yooyu dañ koy relancer waat maanaam dem leen fi ngeen ko defee woon de toute façon sax automatique la mën a doon parce que IMS dina ko saytu xool demande yooyu yëpp ni mu ko waxee ci circulaire bi képp koo xam ne 30 jours yooyu moo taxoon ñu rejeté la alors dinañ xoolaat sa demande établir ko fay la ko jëm ci wàllu NASPE bi. donc leneen li ci des mooy décréto sostegno bis moo ngi ñëw donc waxoon nañ leen keroog mesure yi nga xamante ne bi buñ sukkandikoo ci journal bi ñuy woowee Il Sole 24 ak La Stampa bu Torino ñoom ñëpp xam leen nañ ne dëggal nañ ne. decreto sostegno bii di ñëw ñu koy woowee il sostegno bis wala il decreto aprile dina amaat yeneen bonus stagionale pour ñaari tranche ñaari weer dina amaat yeneen ñaari weer reddito di emergenza dina amaat aussi yeneen ñaari weer yeneen ñaari tranche maanaam yeneen ñaari pagamento pour aussi fondo perduto jëm ci mbokki taalibe yi nga xamante ne bi donc ñoom ñoo yor partita IVA yi may xamal mbokki taalibe yi ne ñu bëree bari def demande yooyu noonu di xaar alors seen demande mi ngi nekk une phase di élaboration

supposons dafa am lu woro wala lo xamante dafa wuute jëm ci résultats yi nga déclaré bi ngay def demande bi de ce fait demande yoyep dañ leen di suspendre jusqu'à ce que nit ki donc indi ay précision yu wor wala mu def ben donc benen demande carrément donc déclaré résultats yi nga xam mom la déclaré en 2019 ak yim déclaré 2020 de ce fait ñu mën ko élaborer demande mais dal ñi ko dugaloon ñep alors ci début bi depuis le 8 commencé woon nañ leen ko fay parce que amon nañ kàlloo boobu noonu donc yeneen mbokk taalibe yi nga xam dañ koo dugal nag dañ wax leen ne demande in ne alors nañ toog xaar euh, magari fu demande bi toll rek dinañ am communication bu leen di waneel ne am nañ esito positivo wala ñu am donc esito negativo donc kon ñu bañ a yàkkamti rek toog xaar te xam ne ñu baree bari respecté woon rek réquisites yooyu rek fay nañ leen ko alors li ci des moom mooy toog xaar ba xam wala nga dem si CAF yi nga defoon sa demande ñu contrôler la xool lu ñekk ci demande bi de ce fait bu booba di nga a relancer waat ak lu nekk ci sa demande incha allahu rabbi donc leneen li ci des ba tey mooy alors euh, bonus 2400 euros catégorie gi ko doon jël jël ñu koy répété donc ñoom ñëpp xam nañ leen ñuy ñaan mbokki taalibe yi chaque jour dañ leen ciy soññ dem leen ci poste italien yi jël leen appuntamento ngeen defarlu speed speed mënta ñàkk léegi donc pratiquement boo ko amee rek demande boo bëgg a def di nga ko def te foo bëgg a dugg ci plateforme donc euh, système public italien di nga fa mën a dugg pour donc registrer wu wala nga def say demande donc explique boobu lu mënta ñàkk la te noon costanu la kenn du la ci fayeeku dara dem leen ci poste yi ngeen jël appuntamento yi ngeen def ko de ce fait demande bu ñëw rek dina leen mën a relancer bu ko defee ngeen bokk ci demande boobu noonu mën a donc euh, relancer waat ci yeneen demande euh, actuellement daal fi ñuy tënkee mooy décréto sostegno mesures yi mu indi woon yëpp jëm ci demande yi donc mesures yëpp léegi ñu ngi en vigueur demande yëpp ubbi na bu jëlee ci rem bi rem bi xam nga ne démarré woon na depuis le 7 avril te dina jeex le 30 avril bu fekkee duñ ko puusaat buñ jëmee ci fonds de perduté bi démarré woon na depuis le 30 mars te dina dem ba le 28 ba le 31 mais donc euh, ni ko loi bi indee bu ñu waxee ci bonus stationnale ñi ko amoon automatique ñu bare bari fay nañ leen ko képp gisut sa paiement automatique nag ba jamono jii nii nii ñu def vidéo bi xamal na yow boo amee réquisite yëpp gaawal nga relancer waat def demande bu bees bu ko defee ñu mën la koo fay cent euros yi ak aussi nga mën a bokkaat ci soste ñu bis bii di ñëw war a il décréto aprile bu jëmee ba tey ci catégorie gi nga xamante ni ba ba tey ñoo ngi doon xaar defoon demande ci décret yu jiitu yi ñu rejeté leen wala soit ñu am jamono ji réquisite yi wala ñu war a présenter demande bi te liggéeyoon daaw stagionale fekkoon leen ci nas bi moo tax dugalul ñu woon mm, donc ristori cinque yi ak quartier bi alors de ce fait catégorie googu ñoom instant bi à partir de tey jii IMS dugal na link bi nga xamante ni bi fii ba le 31 mais mën nañoo présenter demande boobu noonu ginnaaw bi ñu amee réquisite yépp donc lii mbokk yi moo gënoon a fës ci vidéo bi ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla ji jërë ngeen jëf